nee nañu personnel groupe opérationnel bu Dakar bi yëpp nañu dem ci cantonnement yi àllarba nga xam ne moom la ñu dëgmal ñaari fan ci weeru novembre yéene kaay gi nag nee na communiqué boobee Ousmane Sonko nañu ko sa tuddee mooy Oscar Siara yéene kaay gi du l'Observateur nee na nag lu jëm ci communiqué police boobee nga xam ne dafa daal di fuité ci lu jëm ci déglu Ousmane Sonko loole nag andi na nag pëccëxoo gu mag ci biir police maanaam ji gars yi mer ma ne la malaise moo am ci biir li nga xam ne maanaam mooy communiqué boobee Sénégal nag ma ngi ci danger bu ñu Keita yéen kaay gi de libération ñu xëy fekk fa maître Bamba Cissé mi nga xam ne mooy avocat bu Ousmane Sonko bu dee ab soppar ñi amu ci ñetti fan ci weeru novembre bi ñu dëgmal la ñuy déglu Ousmane Sonko maanaam alxamis ji nga xam ne moom la ñu dëgmal maître Bamba Cissé nee na danañu déglu Ousmane Sonko ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr yéen kaay gi de alerte nee ñi nga xam ne nag ñu yoo police jamono ji aw nañu ci yoonu guerre yéen kaay gi de la Tribune nee na mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr maanaam atte jugement la ñu koy yóbbu ko mandat dépôt maanaam bis bi mu wujjee bu demee nag doyen des juges bu waxee ko ko def yéen a kaay gii di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu nemmeeku tur bu Ousmane Sonko coow amati na ci ndax bi mu demee ci cikki maanaam ci jasa ay jàppante yu méttee métti moo fa amoon diggante waa Pastef ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak a kaay gi nee na ndaw yi APR ñoom nag ñoo doon yuuxaloo Ousmane Sonko naan Adji Sarr loolee moo metti gaay yi nga xam ne ñoo àndoon ak Ousmane Sonko ñu dóor leen bañ leen di toggalum xewara yéen a gi nag nee na bëri na ci ñoo xam ne am nañu ci ay gaañu-gaañu am na si ay kër yoo xam ne yàq nañu ko yéene kaay gi la Réveil Quotidien nee na bu ñu waxantee dëgg cortège Ousmane Sonko la ñu attaqué yéene kaay gi di Sud ñu xëy fekk fa professeur Mamadou Diouf nee na mbirum ñetteelu candidature Macky Sall kenn waru wax ci réew ndax nag bu ñu koy jéem ci réew mi réew naa dugg ci kaaw mën naa pëcc rëy mën naa am ci réew mi yéene kaay gi di Réew la ñu doon amal ci lu jëm ci loo xam ne lu su sopparñiku la ndax yokko yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na jigéen ñi jamono ji mer nañ ba mara détaali bëri na ay kuréelu jigéen ñoo xam ne jamono ji nag takku nañu ba taxawaa ndax nee nañu li ñu rey si ay jigéen ci réew dafa bëri loola waaye nag ñoom ñaawlu nañ bu baax a baax pata pataaral gi nga xam ne moom la ci Macky sal def ndax jigéen ñi ñoom nee nañu manaam football bi bu xewlee ñu gis Macky Sall tweet bu basket bi xewlee ñu gis Macky Sall bind waaye nag jigéen ñi bu ñu leen di rey kenn du gis Macky Sall yéen a kaay gi na jigéen ñi danañu amal rassemblement bu mag fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre yéen a kaay Abdoul wax na ci contrat 45 yi nee na scandale munu ko ba 2022 sur scandale scandale yaa ngi mel ni tulleeg male marché gré à yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi doy na wara dafay jëflanteel ay marché gré à ñoo xam ne ay wéyul lañu Frank Timis rek doy na ci te nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi sonn ba maara détal yi xiif bëri nañu ñii ñu dénku leen réew mi maanaam ñuy pasar pasare alalu réew mi te nag arme yi nga xamante ne dafa lëndam ba mara détaillé état bi mën nañu koo jëfandikoo ci lu jëm nag ci wàllum ñetteelu candidature le réveil quotidien nee na état bu Sénégal mu ngi wër kan moo génne li nga xam ne mooy contrat bi daal di koy génne ci mbedd mi yéen a gi de libération nee na douane bu Sénégal jàpp na ca diwaanu Kidira drogue boo xam ne bi ñu ko xaymaa toll na ci trois cent kilos cocaïne bii nag mooy record bi ñu ko xaymaa sunu koppar vingt quatre milliards la yéen a gi de gii di Les Échos nee na am na benn gendarme boo xam ne dafa xaru ca diwaanu Tivaouane Peulh la ko waral mooy gendarme boobee dafa yàgg am ay jafe-jafe yoo xam ne mënut a saafara wa mu daal di faat boppam yéene kaay gii di sunu làmb Modou Mbaye wax na ci combat bi war a dox diggante Papa Sow ak Siteu nee na nag Papa Sow dina ko attaqué ba tey ci biir journal bi Maman Faye nee na Siteu moo man Papa Sow te jouru combat bi lépp dina leer Siteu dina ko daane facilement Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen